fexe ba nga xam ne liggéeykat yu nekk ci Sénégal daañ leen gën a jox gëdd loolee muy taxawaay Union nationale des carreleurs du Sénégal xalif général des Mourides daal leen di dalal gannaaw ba ñu carrelé miiru kër xalif général des Mourides Ibrahima Dia di njiital Union nationale des carreleurs du Sénégal di yéeglu jëmle ko ci kilifay dëkk bi. donc euh, ñi ngi naan état Sénégal son excellence Bassirou Diomaye Faye seen ndaw ñi ngi nii seen jeunesse ñi ngi nii soxla nañu la main d'œuvre locale tey on a avec 2000 mètres carrés sur 5000 caroleurs ñu daje fi chaque jour y avait 150 caroleurs yuy ñëw ñu bokkul ak sa morom. ñu gën leen jox gëdd waaye itam ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum mbëkk mi nga xamante ne ndaw yu bari ña nga cay dem rawatina ay ouvrier jamono ji nag jàpp nañu ne faw rek ñu daal leen di gën a taxawu ci seen wàllum liggéey. képp koo xamante ni am nga ab liggéey boo xamante ni jël nga ko jox ko union nationale des carreleurs dinañu takku ñun ñëpp. dem maase dem ca liggéey booba liggéey ko ba nga xamante ni dina mel nañ na mu war a ndax ñun kat ay ndaw lañ yoo xamante ni dañoo boole sunuy xam-xam sunuy doole sunu lépp di ko fas di fas yéene nag di ci jaamu yàlla. ndax la sëñ Fallou mbake waxan jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi loolu na lay doxee mooy euh, kenn mënut lépp ñëpp bu ñu àndee nag dina yomb. kon moo tax ñun ñëpp nag buñ boole nekk benn benn dànk lu ñu bëgg dinañ ko am incha allah. ñaari junniy mètre carré yoo xamante ne daal nañ koy amal ci karu ci diiru fukki fan ak ñett gannaaw liggéey bi nga xamante ne moom la leen sëñ Isaaxa Mbacke daal di dénk Union nationale des carreleurs du Sénégal ñoom ñëpp gannaaw liggéey bi sëriñ Mountakha Mbacke Bassirou daal dina leen gërëm sant leen ci liggéey bu rafet bi nga xamante ne amal nañu ko.